dama day Santa Gningue dama day Bombardier dama day Moussa Loss ayca mooy Mbour. waaw mooy Mbour mooy Mbour mooy Mbour. ndeysaan. Mbaye Boye Mbaye Boye. Eto nuyu naa la. mais ay bëri ñu lay fay. et le moral aujourd'hui. alhamdulilah. le moral est bon. le moral est bon. waaye comme d'habitude ah. comme d'habitude mais ngeen di bëree titre roi des arènes loolu fekk saa mu fekk. waaw mais li jafe mooy mën nga nekk roi des arènes. Ah. d'abord kii di roi des arènes. Ah. nekk xale comme ñoom. Ah. wala jëflante ak ñoom. waaw xaar assisté combat bu neex. le très beau combat ñaan yàlla yàlla yàlla may ndam. da ngeen ñëpp conservé la couronne. ah bien sûr. conservation la ñëpp. conservation la jëm. mais mais Sénégal yëpp nee nañ Ama Baldé day daw jëli seen bët. waaw ñëpp ñëpp xam nañ loolu la combat bi. Mour sax xam nañ Ama Baldé day ñëw songu say. waaw te loolu yombul ko. ah tànk baa ngi noonu rek. tànk baa ngi noonu rek mais Ama Baldé dafa nekk mbër boo xam ne fii lay attaqué jëm kaw. Modou kay Modou moom man man day bëgg mu nekk en mauvaise posture. waaw dama bëgg Modou ñu koy jël di ko jéem di ko war a doom ba fi jël tànk bi. Ah. waaw mais ñëpp nee nañ yéen a moom bagaar loolu d'accord na waaw ñu daal ñu ngi si làmb ji. waaw indi lépp. ñaan nag yàlla nañu yàlla may ndam. wala ñaan yàlla. état physique ma gis Modou Lo ma ah. wax na ko Modou nee na. bureau mooy entre saali la. Ah. géej duñ ko saabu. kon dafa a feeñ quoi. ak ni ma gisee. waaw mu gaaw. Ah, mais na bañ a gaaw waaw na bañ gaaw quoi. non gars yi ñoo nangu Modou ak Ama. ñu bëree ñu xeex ñu bëree ñu xeex gars yi kontaan. waaw. Papa wax wax na lépp. li Papa wax moom laa non du ay consommation mais ñu bëree. li trois des dafa war a neex bu ñu koy bëree dafa war a neex. waaw dafa war a bëree ay mille lourds. kon dafa war a neex. kon am war a am rythme aussi. non non non bu ma kaaroo non non bu ma loolu ni ñu bëree wër bi gang. waaw waaw. yow lan nga xam ne Ama Baldé bëree woon ngeen. non Ama champion. champion confirmé. waaw dëgg yàlla. waxal Ama wax champion. far bi faral moo doon doy ñoo ne Ama champion la. Ama ku ko bëgg a may rek da koy jëli. gis nañu si moom mbër la. mbër la waaye mi ngi daje nag koo xam ne ku am jom. ku am fit mën a bëree. mën a xeex aussi. ñoom ñaar ñëpp baale nga ak ñoom. muy deux champions confirmé. ndeysaan jërëjëf papa le piment de Pape. waa parcelle suñu wax yëpp dañ koy tënk. Ah. bu kenn waxee rek wax na lépp. <laughs> rek la ñuy ñaan comme Sénégal bëgg nañ ñoom ñaar ñu bëre. Ah. bëre bu neex ah. xeex bëre gars yi àtte bi yuux mais nga la loolu na am. arabu bi. waaw amul problème amul problème Amadou Ba jàpp vraiment jàpp na ci làmb non ci maanaam ñaari mbër yëpp la jàppale waaw ñaari mbër yëpp wallaay non oui. Sénégal la Ama doomu Sénégal la moom doomu Sénégal la. bu Modou pare te Ama parewul du ne il faut que Ama pare Modou pare loolay jongante waaw ñoom ñaar ñu sàmba yaane ngaat yii yëpp dañuy xumbal waaye bu ñu demee ba ci kanam ñëpp ay gën a bàyyi leen ah, ñoom ñaar de yaakaar naa ni ñoom ah. kenn ñëwewu ci wax loolu waaw parce que lamb ji dafa yàgg Ama li mu yëngu yi ma yëngu ah. xam naa bu lamb ji amee ñëwewul wax loolu te Modou moom xam naa il est en pleine forme mais coach yi nii. aju nga bu yàgg yow. kii moo yóbbu Modou. des dara yóbbu ko ba 100 millions. six cent yóbbu ko ba 100 millions. des dara à 100 millions. Bravo Rock Énergie. moom nag moo ñu yar. moom moo ñu yar bi ñu nekkee xale. naa ñu nii ngay jàppee tànk nii ngay def ñu bari na dañuy xool Nampa Mbaye mais moom. communiste la xam nga ñaar communiste. moom yanuwul ay am-am. Pape Mbaye il est comme ça il est direct comme ça et on le respecte comme ça. <laughs> Il est dans les temps. Jangan jadi star. vote. Thank